Eh, Exbet point seen eh, sunu Tito TV waaye maa ngi leen di ñaan ngeen abonné balaa loolu ngeen aimé vidéo bi léegi eh, yéen ñi ma doon laajte nan la ñuy gañe xaalis si YouTube bi wala TikTok mais tey YouTube laa leen di indil léegi yow boo bëggee YouTube di la fay nga dugal ay vidéo foo nga monétiser ko léegi YouTube nañu ñëw dugg YouTube ma woon leen léegi balaa ngaa mën a gañe xaalis foo nga monétiser sa seen YouTube ok sama gaay gis ngeen seen baa ngi nii nombre d'abonnés yaa ngi nii léegi ah, mu ngi nii cent soixante quinze abonné la léegi sama gars yi léegi boo bëggee YouTube di la fay léegi dañuy ñëw ma wan leen da ngay ñëw dugg fii YouTube studio léegi boo duggee YouTube studio ok ñu xaar mu di chargé tuuti ah, balaa loolu maa ngi leen di ñaan ngeen abone te ngeen partagé mooy yokku seen bi doole képp koo xamante ne li ñuy def rek ah, neex na la te yaa ngi si gis sa bopp ngi lay won ñu ngi lay ñaan nga abonné léegi Euh, ñu ñëw fi nga xamante ne mooy revenu léegi comme yéen ñi nga xamante ne xamoo leen faw ñu ñu leen di defal flèche bi ok léegi fii la ñuy ñëw ok gars léegi fii la ñuy ñëw fii ñu def revenu léegi bu ñëwee revenu dañuy xaar tuuti mu recharger ok gars yi gis ngeen mu ngi nii léegi fii nii boo bëggee defar annoncé sur la page de lecture gérer des revenus grâce aux annonces à YouTube Premium sur la page lecture ok fii tamit gagner de l'argent aux euh, annonces YouTube Premium fii lii lépp intéressé wu ñu léegi lu ñu intéressé mu ngi fii ok sama gaay gis ngeen fii lii man maa ngi am soixante quinze abonnés léegi soixante quinze abonnés laa am léegi gis ngeen mille bii nii faw nga am mille abonnés léegi boo amee mille abonnés euh, nga am Ah, trois cent soixante cinq derniers jours gis ngeen quatre mille heures foo nga am quatre mille heures wala nga am ah, YouTube Store xam ngeen YouTube Store mooy vidéo yu mel ni vidéo TikTok ngay dugal si YouTube bi foo nga am si dix de vues mais lii lii mën naa mën nga kaa bañ a am léegi yow lii na nga ko am quatre mille heures yi ak ah, soixante quinze abonnés li tax ngay am quatre mille heures nag faw ni seetaan seetaan sa vidéo ba mu jeex boo ngeen di seetaan vidéo ba mu jeex si la nit ki di gis ngeen fii mooy deuxième étape bi léegi validation deuxième étape da ngay ñëw activer fii nii lii lii ko def ci deuxième partie bi fii respecter le règlement communautaire gis ngeen euh, c'est le avertissement actif pour non respect du règlement de la communauté vous empêchez d'envoyer une demande de la euh, participation les mises en garde l'avertissement expiré pour no respect du règlement de la communauté les avertissements pour atteindre aux droits d'autrui n'ont aucune incidence euh, sur vos éligibilités léegi képp koo xamante ne respecté woo li règle YouTube teg YouTube dina supprimer sa compte bi léegi deuxième étape bi mooy fii boo fi ñëwee incha allah deuxième vidéo bi deuxième partie bi si laa koy def léegi maa ngi leen di ñaan ngeen abonné képp koo xamante ne bëgg nga deuxième partie bi nga gis ko da ngay dugg ah, gis ngeen seen YouTube baa ngi nii ah, da ñëw rek dugg seen YouTube bi nga abonné léegi boo abonné bo pare maa ngi lay ñaan nga partagé léegi partagé seen bi léegi boo abonné fii da ngay ñëw fii nii nga abonné gis ngeen boo abonné rek nga partage sa activer cloche bi benn vidéo dootu la rawati ok gars yi eh, maa di nuyu